on doit l'encourager da nga nekk di exprimer une culpabilité. ban culpabilité. non dafa mel ni sa gars yi. da nga nekk di kii day jaay day jaay yàppam nga ne après loo wax ci yàpp bi muy jaay man jënduma yàpp jënd naa nu ma yàpp muy jaay yàpp ku ko neex lu ci sama yoon soo ma nee man nag état bi kii di jaay yàpp ne yaa ko yàqal ba muy jaay yàpp bi naa la ne ah la c'est un problème il faut pas tooñ baaxul bu leen tooñ état bi foo léegi nag xam nga li gën a garaaw actuellement mooy que comme guetteur de faux au début ci ay fee lañ doon jël kii wax dara ñu ne eh Ousmane Sonko wax na lii ñu indi critiqué indi coow coow ba si ñu wax loo ko lu mu waxul léegi nag li ma ragal mooy ñu jublu ci sabotage. sabotage eh attention de. c'est-à-dire. loolu nañ ko éviter. mais c'est un fait. waxuma loolu de yéen lii lii moom ñaawal la ñaawal garaawul. koo ñaawal mu ñaawal xam nga làmmiñ di won na morom ma làmmiñ di won na morom ma loo leen wax mun lañ ko tontu loolu du problème. li bon nag mooy ngeen jël ay actes pour yàq li ñuy liggéey. ñan comme assemblée ni ñu commencé. mais ñan ñeen ay waaw damay avertir rek damay avertir rek. Hmm. dëkk bi ñu ñoo ko moom il faut respecter le suffrage des Sénégalais. ils ont élu des gens man mii bi wax ak yoon bu doon sama sago man la ñu élire éliruñ ma ñoom lañu ñu élire nangul naa leen bu doon ñoo xam ne ñii souteniruma leen damay maandu seen affaire ba dóor xeer jot ba dóor xeer. man bi may demandé bi may attaqué Macky Sall di nekk opposant tàgguwuma kenn kon nag il faut que les gens respectent ça ñu bàyyi leen ñu liggéey ñu ñaan yàlla ñu réussir Sénégal pour, pour le plus grand bonheur du peuple sénégalais voilà justement c'est comme ça qu'il ouais, faut mais ça c'est le débat il faut ngeen nangu tamit da Macky Sall da ko nanguloon ah ngeen taxaw fële yor seeni xeer di ko ko joor et à l'époque les gens de la perte ou de Benno Bokk Yaakaar n'ont pas dit dañu ñu ak yéen da ngeen ñu bëgg a yàqal da ngeen sabotage dañ ko fekk ak ngeen di nangu da ngeen di nangu en tout cas daal man daal <laughs> mercredi prochain bu décret bi daanoo du ma bu parce que ba ma euh, j'ai j'ai reçu ici pas de gens mais tey ni nga defendre régime bi recevoir gu ma depuis l'élection ku défendre noonu régime bi. entre nous yow xam nga ma est-ce na décret bi wadd est-ce que yaakaar nga ne loolu dama ko gëm. wala dama koy def pour décret. non man maa mag maa mag décret mais ce serait une très bonne chose. déglu ma rek man maa mag décret. waaw mais ce serait une très bonne chose. man qu'on vous donne l'opportunité de servir le pays. déglu ma man je sers mon pays je soutiens le régime je participe au gouvernement à ma manière. et c'est moi qui décide bu may participer ci gouvernement. mais Boubacar. da nga nekk non non xaar xaar xaar da nga nekk faut ñun. non je ah, donne pas l'impression parce que dañuy xaar décret non je donne pas l'impression voilà. ils ont ils oh, ce soir par rapport à toutes les questions que j'ai soulevées et d'ailleurs tu, tu dois en être content li ma soulevé ci question yëpp ni ngi leen ci génnelee argument parce que leen di wax rek yéen ma ne ni ngi leen ci génnelee argument amul kenn ku leen ci génnelee noonu argument 12 ans nga ñëw yàq c'est une def élection daaneel la nga naan da ngay da ngay da ngay ba pare bu waxee bu waxee ngay wax kenn été conseil